tey jii Metz dañuy amal match amical waaye list bi moom mii di Lamine kamara bokk ca bëgg-bëgg bi ñu am moo di jaay ko moo tax wóolu wu ñu ko football la muy am blessure fan yële weesu am na club bu jógee woon ci réewu Angleterre tudd Southampton defoon ci offre bu toll ci dix millions d'euros waaye kat waa Metz dañoo gantal nee nañu loolee dafa ndaw lool jamono ji nag li ñu bëgg moo di jaay ko waaye bu ñu koy jaay bëgg nañu ca lu ëpp vingt millions d'euros wala lu mu gàtt gàtt ñu am ca vingt millions d'euros moom Lamine kamara ñu jugee ci Lamine kamara ak bëgg-bëgg boobe waa Metz am ci moom jël doomu Maroc bi tudd En Nesyri démb waxoon nañu leen ne gone gi jubóo na ci lépp ak waa Fenerbahçe jamono ji nag lépp yemb na mi ngi ci avion bi wutali réewu turki ngir amal visite médicale yi su lépp yembe mu xaatim foofee contrat doxal ci super ligue bu turki ba jàppale José Mourinho muy En-Nesyri nekk attaquant bu mën li muy def ma nga woon ci Séville waaye avion bii ngeen di gis moo koy yóbbu ci réewu Turquie ñu jógee ci En-Nesyri te di ko ñaanal yoonu jàmm jël doomu France bi tudd Désiré Doué gone gi ca stade Rennais la nekk waaye jamono ji ñaari club ñoo koy xëccoo muy Bayern de Munich ak Paris jamono ji nag xeex bi door na ndax waxoon nañu leen démb ne waa Bayern de Munich def nañu offre bu toll ci cinquante cinq millions d'euros bonus lépp ca la bokk nag foot mercato nee na waa Paris ñoo ngi waajal offre bu toll ci soixante millions d'euros la ñu bëgg a teg ci table bi ngir xaatimal contrat Désiré Doué te loolee nag bu amee mën naa am ñu foqati ko ci waa Bayern de Munich ndax Bayern de Munich cinquante cinq millions d'euros la def comme offre waa Paris nag offre bi ñuy waajal mi ngi toll ci soixante millions d'euros loole la foot xam xamle ñu jógee ci Désiré Doué ak ñaari club yooyee di ko xëccoo jël doomu Suède bi tudd Jorgensen moom nag jege na lool ngir jógee ca Villarreal gi mu nekk dem ca Chelsea ci doxal gone gi nag góol bu mën li muy def la daanaka léppam yemb na ngir mu jógee ca Villarreal dem ca Chelsea jàppale leen bu ñu demee bay juboo nag li ñu war a juboo cib xaalis bu ñu ko xaymaa dina toll ci vingt cinq millions d'euros jàpp vingt millions d'euros jamono ji jege na lool moom Jorgensen ngir dem foofee ca Chelsea jàppale leen bu ñu sukkandikoo ci sa Athletic ñu jógee ci Jorgensen ak bëgg-bëgg boobe waa Chelsea am ci moom jël doomu Ukraine bi tudd Dovbyk moom nag mi ngi ci yoon wutali Atlético de Madrid Madrid ndax léppam yemb na gone gi jubo woon na bu yàgg ak waa Atlético de Madrid te club bi mu nekkoon di Girona jamono ji juboo nañu ci lépp ak waa Atlético de Madrid entraînement bi Girona doon amal tey ji bokk ca mi ngi ci yoon wutali Atlético de Madrid su yeggee nag ñu amal visite médicale yi su lépp yembee mu xaatim foofee contrat kon nag mën naa am bëccëgub tey jii balaa jeex wala file ak suba ñu officialiser ay mbiram muy doomu Ukraine bi di doof bi ci fàttali saison bii ñu génn moo jël meilleur buteur ci Liga e-sport ba xibaar boobu de Deportivo moo ko xamle. ñu jugee ci doof bi ak bëgg-bëgg boobee waa Atlético de Madrid am ci moom jël doomu doomu Espagne bi tudd Ansu Fati xibaar bii nag neexut ndax doomu Espagne bi dafa am blessure tey jii la am blessure bu xaw a métti te boo moytuwul nag dina toog ay fan yu bari door a dugg ci terrain football soo moytuwul dina toog ñetti ayubés maanaam trois semaines jàpp juróom benn ayubés maanaam six semaines door a mën a dugg ci terrain football kon nag ëllëgëm ca Barcelone mi ngi woy di takku suuf moom Ansu Fati tey jii la am blessure bu xaw a métti ñu jugee ci Ansu ak xabaaram bu ca waa Real de Madrid ñoom nag seen gone gi tudd Endrick te ñu koy waaje présenté file ak samdi incha allah dina door entraînement yi ak waa Real de Madrid ngoonu tey jii lay amal entraînement bu njëkk ak waa Real de Madrid moom mii di Endrick samedi nag incha allah la ñu koy présenté kon laata ñu koy présenté dina door entraînement yi ak waa Real de Madrid loolee ngoonu tey jii la koy amal moom Endrick gaa ñi xabaar yi foofu la buuree